musal ñu ci jikko yu yàqu yi ci àdduna def ñu ñu doon dëgg dëggi jullit yu seenu ngëm sell te sori lépp luy nuru bokkaale ak xeetam tam xiir ñu ci def lu baax te jëmmam tax mbokk yi bàyyi xel baax yéen ñëpp ñoo ngi békki yéen di yeesalaat suñu nuyoo ak suñu cofeel ci yéen rawatina ni ngeen di àndee ñun ci jotaay bi ñiñ ci baaxoo bere li nuyoo buñ koy door tàmbalee ko ci kilifa yi rawatina ñi nga xamante ne bëgg a jubóog seen boroom tax na waxtu wii jóg nañ def seeni naafila di waajal seen julli fajar yor seeni kurus moo xam dañuy laazim walla ñu ngay bàkk seen borom subxanahu wa taala canam yelle canam ware yàlla suñ borom nangul leen ñoom ñëpp te nangul ñu. noonu la ñuy siyaaree ñi nga xamante ne waxtu wii ñu ngi ci waajtaay yu jëm ci barab seeni barab bi liggéeyukaay ñaan suñ borom jàppandi la leen ndax liggéey daa bokk ci farata yi nga xam ne kenn waru koo sàggane kenn ku nekk war na cee góorgóorlu def ko mu nekk yitteem ndax daa bokk ci xeeti jaamu yàlla yi ndax suñ borom fu mu waxee gëm rek lam cay mooy jëf ju baax jëf ju baax nag moo yóbbaale lépp lu mën a doon te ci suñu bindu démb bi biñ ko yëkkati ndénkaane yi alayhi salaatu wasalaam yi ñu doon waxtaane gisoon nañ ci lu mel noonu te mooy bañ a laaj kenn te fekk loruwoo koo xam ne yaa ngi daw ak laaj nag la muy tegtale mooy war a nangoo ñaq jariñu ngir nga mucc ngir nga fegu ci lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu laaj ak yi nga xam ne moo ci aju yal nañu yàlla barkeelal te defal ñu tawféex noonu la ñuy jaajëfale bu baax a baax soppee almisbaax yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo yor oto yi ci fajar gi tey jàpp Sud FM seen rajo ci 98 point 5 moo xam ni ci biir dëkk bi la ak ñi nga xam ne ñi ngi jóge ci yeneen dëkk yi jëm ci yeneen dëkk yi te jotaay bi doon wéttal ci ñoom ñu di ci ànd ak ñoom yal nañ ci bokk jariñu jotaayub jàng la jotaayub jàngalente la jotaayub fàttalente la doon nag waxtaan woo xam ne day ubbil oustaz Alioune Sall mii ñëw léegi bu ñu jógee ci jotaayam yu am solo yooyu nga xam ne moom lay indi yal na suñ borom yokk ko sàmm defal ko wér te gën a barkeel xam-xamam suñu jotaayu démb maa ngi doon waxtaane lu jëm ci dénkaane yi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam moo ko doon dénkaane ñu am yennat yuñ ci jukki woon jotoon na maa ñëw ci ñaareelu ndénkaane bi ginnaaw ba nga xam ne ñëwoon naa ca bu njëkk ba ca bind bale mu waxoon ne maa ngi lay dénk yow abi zarrin te ma waxoon ne moo ñu yóbbaale ñun ñëpp ci nga déglu te ngay topp sa kilifa même su fekkent ne jàpp nga ne ko xeebu la bu démb bi ndénkaan li ma indi woon indi na juróom-ñaari tomb yoo xam ne mi ngi ci ndénkaan li am na mbokk yu may woo sax di wax ne nañ leen ko benn benn lal ñu bind ko xëy na bu ñu dégluwaatee ma jàpp mbaxana ñu dégluwaat suñu jotaay bi toppaat ko ci situ rajo bi ci 3w point sud fm seen rajo point com danañ ko mën a dégluwaat incha allah bali ci nekk ci aw yiw lépp ñu bokk ko jariñoo démb dama caa jaaroon wax ne la saxaaba bi di abi darrin dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo dénk juróom-ñaar ba ca njëkk da ko wax ne ko maa ngi lay digal maa ngi lay digal digal mooy defal loolu lu baax la bàyyi ci xel ci jikko yu baax yi la bokk day tax a dugg aljanna mu ne ko ah mu ne ko ngay bëgg masaa masaakiin yi mooy ñu néew doole ñi te nga leen di jege maa ngi lay digal itam ngay xool ñi nga xam ne ñoo la féete suuf te bañ a jël sa bët teg ko ci ñi la féete kaw day tax a bëgg àdduna day tax a bari mébét te dee da bett ne ko maa ngi lay dénk itam di la digal ngay jokk ak mbokk même su fekkee mbokk mu la dog la saraawoon naa ci lu yaatu ndax ni mbokk tëddee ci suñu réew mi ak yi nga xam ne moo ci aju waxoon na ko ni itam maa ngi lay digal nga baña laaj kenn dara nga bañ a laaj kenn doon koo xam ne ab ñaankat nga ñaan waaw ñaan nga xam ne yow loolu rek nga bëgg a féetewoo léeg mu am cib koñ nañ ma baal koo xam ne dañ naan diw ni mën a ñaane waaw bu njëkk dañ daan yar xale ne ko bul ñaan nga xam da ko ciy tàggat kenn du may xale xaalis boo ñëwee ci kër ndax da koy bañ a tàmmal ñaan ba gan gu ñëw muy xaar ci moomu xaalis xeetu yarin la woon ci jom la bokkoon ci jom la bokkoon mu ne ko nag maa ngi lay dénk itam ngay wax dëgg ak lu metti metti tegal ko ca ne ko maa ngi lay digal itam dëgg moom nga bañ caa ragal yeddaangee nit ñi waaye daal lépp loo xam ne yàlla la ñeel na nga ca taxaw waaye wut ca ngërëmul nit ñi bu mu tax nga di tàbbi ci loo xam ne merum sa boroom la lay indil ba muy jeexal nag mu wax ko ne ko maa ngi lay dénk nga bari looy wax laa xawla wala quwwata illa billah ma waxoon démb ne joxewuma ab lim bu ma wax ne nii lañ koy defee waaye yow mi koy dégg te bëgg mu bari bu la neexee nag man ngaa dog ab lim ndax li gën ci jëf yi mooy lu sax bu la neexee nga ne téeméeri yoon laa koy wax bis bu set bu la neexee nga ne ñaar téeméeri yoon laa koy wax bu la neexee nga ne ñetti téeméeri yoon laa koy wax insha allah lim boo ci dogu yépp a baax yépp a baax na sax rek na sax sax gi daal moo gën tey nga def junni suba nga def vingt ginnaaw suba doo def dara wala féex naa tey rek tax nga def trois mille toog ñetti weer yoo defut déedéet saxal gi daal moo gën li gën ci yëf yi mooy loo xam ne nit ki da koy saxal même su fekkee dafa néew na ko saxaal rek beneen dénkaane bi nga xam ne moom lañu ñu war a xool tey muy alwasiya athaalisa dénkaane ñetteel bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko caa digal topp topp mu mel ne li ma waxoon ca bind ba ca dénkaanu njëkk ya ci topp kilifa lu ñor yonent bi la alayhi salaatu wasalaam waaye itam di ko wax ne ci ndénkaan lii moytandiku yi nga xam ne dañ koo sos mooy biddaay yi nga xam ne bokkut ci diine ji te leleen ñu sos ko wut mbubbum diine ñawal ko ko rukk ko ko ñu moytandiku yooyu léeg mu bari lool nga dem ci dëj yi gis yu bari yoo xam ne bokkut ci dëj bi ñu def ko tudde ko diine te fekk xëy na aada woon wala jëfi ceddo la woon wala luñ donnoo ci suñuy maam la woon waaye nag mën na koo seppi sànni doom juddu nga ñëw fekk yu bari yu ñuy def yoo xam ne bokkul ci diine ji di ko defal xale bi te fekk yooyu bokku ci woon te kenn du ko laal nag bu ko defee ñu defal ko ay garde fou ndénkaane tey bi nag saxaaba bu ñuy wax irbaat ibnu saariya radiallahu anhu moo ñu ko nettali nee na daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis dañoo julli suba ba noppi mu ñuy waar waaraate wu metti waaraate wu tàng waaraate wu jot nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay waxam mësta lëndëm ay waxam mësta am luñ naan lu mu bëgg a wax waaye keroog rawatina nag wax ji xóot lool man ngaa wax ne mu fàttali dee xuppaate wax ca kaw jàngi aaya moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey ña fa toog dañ naan ah tey de moom góor gi nag wax dëgg yàlla waaraate wu na nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci ak ñun di ñu waare noonu di ñu waare noonu nee na ba bët yépp tooy xëpp ak rangooñ ba ñëpp yu jooy xol yépp yëngutu waaw ñëpp tàqalikook seen seen sago nee na am na ñu doon wax sax naan ah waaraatew tey wii de daa mel ne kuy tàggoo la nga dégg discours kilifa ñu yëge ci ne kii day wane ne mission wa mat na ndeysaan na yonent bi nag jekki-jekki rek daal di ñuy am lum ñu dénk kon bi mu ñu waaree wax ñu bonu àdduna wax ñu jafe-jafe yi ci nekk wax ñu yàqu yi ci nekk wax ñu yi ñu war a moytandiku léegi nag taxaw na ngir dénkuñu ñi koy déglu yonent bi ne maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla allahu akbar kon suñu dénkaane tey bi ba ca njëkk mooy yonent bi nee na mi ngi dénk ñu ragal yàlla ñu bàyyi xel suñu borom subhaanahu wa taala ndax moom ku am jom ragal ko ku am jom ragal ko ku fi nekk ak say mbokk walla nga amug wér yori moyen wala nga nekk ak say soxna wala say doom wala nga wétlikoo say xarit ba tax nga def yàlla moroom danga koo xamul rek waaye bis dana ñëw nga wéet ak moom ñoo ñi nga defoon ay wéttal ba tax nga yeb ko ba tax ngay fontoo suñ borom di sàggane ndigleem yi ñooña won la ginnaaw nga des ak moom te bu boobaa la muy tegaate ñooña buñ daje woon it duñ ca man dara waaw gisaa nga koo xam ne lim denc ci kontam mën naa suqali lu baree baree baree bari xaalis bu bari la denc waaye mi ngi tawat ju muy wéyaale joo xam ne joxe alalam yépp taxul mu wér ta tawat joojee kak ko teg mooy suñ borom subhaanahu wa bu ko neexoon mu teggi ko waaye itam nag yu baree bare yoo xam ne dox na suñ digganteeg moom mu jaar fa ak ñun ragal yàlla gi du moytandiku yooyu yu metti yooyu muy teg moo tax nga di ko ragal waaye nag amuk bàyyi xel lay doon am reconnaissance ci xéewal yi la sa borom defal nga xam ne bu ko neexoon mu bind la def la nga doon kaña foo génn yat yi dal wala mu bind la def la nga doon muus ne ci kër gi di comaaytu buy taw fu ne nga làqatu fa ak say doom te moom mënoon na ko waaye suñ borom seppale ci ñooñ yëpp def la nga doon doomu aadama mun la wala xadd karam naa banni aadama nga sañ a xar lekk sañ a nag lekk sañ a rey bëy lekk mu wutal la nga mën a sëy ak say soxna di wax ñu lay dégg amug wér di noyyi ngelawam li moom suñ borom subxanahu wa taala sa cër yi ngay fuddutu di waaxu mu lay roof nelaw ngay nelaw ak muy dañ mu lay roof wërsëg rik waaye boo amee jom bàyyi ko xel nag na nga koy bàyyi ko xel mooy nga ñëw sukk ci kanamam ne ko looy digle yow mi ma defal yiw yi yëpp looy digle mu ne la julli juróom de digle naa ko nga ne ko dootuma sëlmal waxtu wi fu mu jotatee lu ma jàpp danaa ko bàyyi dem julli ji waxtu wi ndax bàyyi gu ma la bàyyi xel mu ne la at mi de soxla naa ci fanweeri fan yoo xam ne damaa bëgg nga koy woor nga ne ko dootu dakk de fu mu agseeti muy weeru koor heure bi nga waxoon ne nañ um ca lay tàmbulee jàpp sama koor heure bi nga waxoon ne lañ dog ca lay dog sukk ci kanamam ne ko looy digle ndax dama laa bëgg a bàyyi xel yaa bi mu ne la sa alal ji nga xam ne moom laa la may waxuma nga jox ma lépp de waaye li ma la ci jox ginnaaw bari na ba seetlu nga ne bari na ñoo tane lool ci dëkk bi denc nga lu mat million ak lëf daaw ba ren te laaloo ko rik waaye nag demal séddale ko ñeent fukki xaaj jël benn bi xool ci sama jaam ñi mel ne yow te gënewoo leen dara te ñàkk nga joxal ma leen benn bi nga ne ko yàlla ni nga ko waxee noonu laa koy defee sukkaat ci kanamam subhaanahu wa taala ne ko looy digle mun na sa làmmiñ wi na nga fexe ba bu ci tudd ayib bi nit ñi ndax yaa ngi nii matoo am nga ayib yu bari te bëggoo ko ko tudd ba yépp jeex rek su ko defee nit ki noonu muy bàyyee xel boroomam ci jëf yooyu loolu mooy tegtale ne ragal na boroomam subhaanahu wa taala yonent bi ne kon maa ngi leen di dénk ngeen ragal seen boroom ngeen ragal seen boroom maa ngi leen di dénk nag ngeen déggal seen kilifa waaye maa ngi leen dénk ngeen topp ko ngeen koy déglu ngeen koy topp même su fekkente ne ku oyof mbubb la mu mel ne ñun niñ jàppe ne ki ñu jàppe kilifa mooy ko yore oto ki ñu jàppe ku ñu a topp mooy kuy sol ay mbassin xeeñoo parfum yu seer yi di fatoo ko ubbi waaw di wax ndànk <laughs> yooyu yëpp ne ca moom léeg kooku lañu jàpp ne ah kii kat mooy kilifa gi waaye ki nga xam ne amut yooyu même su fekkee jàngalekat la même su fekkee bari na xam-xam même su fekkente ne mat na njiit fam bokk la ñuy xool na muy solo lañuy xool lam am la ñuy xool yonent bi nee na déedéet bu leen ko def kuñ daje teg ko ci seen kanam na ko topp ko topp kilifa nag dañ koy déglu d'abord déglu li muy digle ñu fas ko yéene jëf déglu li muy tere ñu fas ko yéenee bàyyi waaye nag topp ko nag topp ko hadis bu siiw la bu bari lu ñuy dégg yeneen saa sallam teg ca ne nag ku fi dund dund gu yàgg ci yéen dana gis wuute yu baree baree baree bari allahu akbar man yaais minkum yara ixtilaafan kasira dana fi gis ay wuute yu bari waaw wuute wuute yu bari bi set nga gis wuute yi maanaam léegi rek boo coupé da nga dégg keneen ku waaraate wax leneen lu xaw a wuuteeg lii nga dégg na ah diwkat lii la wax lu ci lislaam wax man yàggumaa dégg loolu leneen laa yàgg dégg wuute yi bari lool wuute yi bari lool ñii ne la nii laa demee ca yàlla ñii ne la nii laa demee ca yàlla ñii ne nii laa demee ca yàlla wuute yi bari lool yi bari lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu wuute yi bari bari bari bari bari ñenn ñi ne la muuru gi farata la ñenn ñi ne la ah yëfi ibaadu la ak yëfi naar la culture la rek mën ngaa àgg ca yàlla te doo muur saw yaram di lépp léppi kii ne la mën ngaa àgg ca yàlla te du tee ngay déglu musique du tee ngay fecc léeg-léeg sax mun la du tee ngay naan sàngara nga wax ko mu ne la xol doo nga takku léeg-léeg mun la du tee bu la neexee jëwal nga wax ko mu ne la xol doo nga takku mën nañ laa dénk kees nga këpp ko waaye bu ñuy seedee jullit kenn du la gën a seedeel ab jullit ñëpp dañ naan ku baax la te xaalis bi ko tax a baax lu ñun ñëpp a ko bokkoon mu ne ko fuuf tey nag ñi koy seedeel ne ko ku baax la wuute yi bari na de li ñuy tagge ak mbaax te bokkut ak balance bi yàlla tegoon ne nañ ko tagge ak mbaax wuute na lool yonent bi nee na ku fi dund lu yàgg da nga gis wuute yu baree baree bare bare bari kon nag wuute yaa ngi noonu dana ñu indil solution bi bu wuute yi baree nu ñu def nañu nag maa ngi leen di moytandiku loo mbir yi nga xam ne dañ koo sos waaw yi nga xam ne yuñ créer la ndax ñun léeg-léeg dañuy jàpp ne daa mel ne daal ni ñu war a toppee yàlla ñun ñoo war di créer léegi waaw di dàkk xelum yàlla di fetal maanaam la yàlla waxoon ne nañ ko toppee ku ca jaar mu gërëm la day mel ne dañ ko naan am na nag yu gën a yu gën a yu gën a gaaw yooyu am na yu gën a neex yooyu xam naa peut-être yàlla da koo fàtte moo tax waxu ko baal ñun ñu jéem koo créer nga xam ne waa ji mën naa takk ay rajoom guddi gi ne day daayira wala muy def lu ne nit ñi di nelaw mu yuuxu waaye nag nee na yàlla bég na ci loolu mën naa def lu ne loo xam ne day wuute ak farata wala mu wuutee ak na waaye jàpp na ne loolu suñ borom bég na ci kon garaaw wut naa ko def te yonent bi dafa waxoon ne jaam bi du defal suñ borom lu ko gënal li mu farataal ci moom li muy defal boromam subhaanahu wa taala li ko ci gënal mooy li nga xam ne moom la farataal ci moom yonent bi ne kon ku fi yàgg ci yéen dina gis ay wuute yu bari waaye nag maa ngi leen di moytandikuloo yi nga xam ne dañ koo sos ndax yooyu yëpp ak réer la ak réer te xam ngeen ne ku réer ku ne sawara rek moo koy gindi waaw ku ku ne sawara rek moo koy gindi yan ñu yàlla musal ci réer Sëriñ Tuubaa mii ñuy wooteel màggal gi ci weer wi ñu nekk dafa nekk gànnaar mag ñi di ko fa war di fekk si waaye nag àgg fam nekk yombut am bis mu jàngale njàngale mu yaatu mu yiw mu bari ay njariñ bokk na ci njàngale moomu na mu ko defee mooy mag ñi nee nañ dañuy ñëw ci moom waaye agsi woon yombut tax ñu watu nag watis yi nga xam ne gone yu tëy léeg-léeg ñu watoo ko léegi xeeti dabalaa yi nga xam ne moom la wax ndondi waaw ñuy watoo noonu nga xam ne noonu ndondi yi doon watoo daldi ñëw nag ba ñëwee ba toog ak moom ñiy waxtaan ñu ne ko ñun kay ñëw gi sax yombut woon waaye dañoo mujj watoo ni gaa yi di watoo solo ni gaa yi di solo moo tax ñu mën a egsi waaye ci njàngale mi tam dëppoog li may wax nii ba agsi ci ndax kilifa daa war di korite njabootam kilifa moom bu fekkee day toog ne la lu jaadoog lu jaaduwul lépp mu ne da ciy noppi daa jàpp njàmburam ay mbiram jar naa seetaat saa yoo xam ne bu nee bàyyi leen bàyyi ga day am njariñ bu bàyyi leen jotee te waxu ko xamut responsabilité bi mu yenu kon digle ak tere daa bokk ci li nga xam ne dañ koy xaar ci ñoom wax nañ ne bi loolu amee sëriñ bi dafa toog ba mu yàgg rek lu mel ne benn sandax yëngutoo ca perum néeg ba ca kaw gayet yi ca euh, xadd ba ne kër kër ne put ñu song ko daal di koy rey bañ ko reyee ba noppi daal ab unku lañ ko tegoon saay saay bi moo tax ñu rey ko ne bu doon si ndax coono bii duñu ci fekk mu ne leen si ndax bi de li ko rey du dara lu du nuru gum nuru unku rek kon nuroo ku sikk mën naa yóbbi nit ay duma ëllëg ndax manta sa tasabbaha bi xawmin fa huwa minhum kuy nuru nuru lu nit ñu boole la ca est que kuy nuru nuru lu nit ñu boole la ca kon watis geek maanaam jantal geek nuru américain geek nuru euh, yu kenn xamut loolu jëru ko kuy nuru da ngay xool lu baax nga nuru ko loolooy li am solo ñu ne ko ñun sax dañoo réeroon bi ñu ñëw xawoon nañoo sonn waaye dañoo toog ba mu yàgg rek ñu seen aw sawara wuy tàkk ñu xam ne fii ay nit a ngi fi sawara woowu ci lañ sukkandiku rek ba gindeeku mu ne leen ëskay ndaxam ku réer ku ne sawara dong moo lay gindi waaw ku réer ku ne sawara rek moo lay gindi yal nañu yàlla musal ci réer yal nañu yàlla musal ci réer ku fi réere attey borom bi di tañax tañaxi sawara dong lay gindi nga door a wax nag yaa layta nii yaa layta nii yee yëpp waaw aka neexoon ma doon suuf aka neexoon duma xam diw aka neexoon aka neexoon maa réccu tey waaru naa yeewu naa waaye réer gaa tax rek ba kooka tàbbi foofu mu ne nag yooyu ñu sos yépp nañ ko moytandiku ndax ak cànkute képp la ak réer la koo xam ne yooyu fekk na ko fi alayhi salaatu wasalaam nee na na ngoy ci yoonam wax na ngoy ci sunnaam sax fa alayhi bi sunnati wa sunnati al xulafaa ar rasidin te ngoy ci sunnas ñi ma wuutu te doon ñu jubal moo tax bunt ba tëjuwut ba ne ràpp waaye ubbeekuwut ba ne ŋàpp mhm. ndax bu ne woon na ngooy ci sama sunna te tëj ko mu doon tëj ba ne ràpp waaye ubbeekuwut ba ne ba ne ŋàyyit ndax dafa am ñoom joxoñ te ñooña mooy asaxaabatul kiraam ak nga xam ne teg nañ seen tànk fa ko saxaaba ya tegoon nga xam ne duñ sos lu bees waaye danañ yeesal luñ fàtte woon yal na yàlla fayal ñu leen bunt bu yaatu la ki yàlla yónni woon ci ñun mbokk yi ci dénkaan yu am solo yooyu nga xam ne moom lay dénkaane indil naa la benn boo xam ne mi ngi noonu tey ci suñ bind bi xadis boobu wax naa la ko léegi saxaaba bu ñuy wax euh, irbaad ibnu saariya moo ko nettali beneen bi ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne suñ boroom moo ko moo ko ko dénk moo ko ko digal tey dañ doon wax ne yonent bi moo digle nangam moo dénk diw nangam nee na bii nag yonent bi moo ko dénk juróom-ñaar yii alayhi salaatu wasalaam nee na ma dénk leen ko nag maa ngi leen koy dénk ci ñu ne ko ban moo ci njëkk mu ne awsaani bil ixlaas fi sirri wal alaaniya yonent bi nee maa ngi leen di dénk ngeen di sellal sellal seeni jëf na sell na yàlla rekk tax ci bu leen maye ngir ñu tagg leen bu leen maye ngir ñu tagg leen hmm? bu eh, def dara ngir bokkaale wala wut wàccuwaay wala ngir wàccuwaay ca nit ña jaamu gi ngeen di jaamu na yàlla képp tax kese na sell sellal googu nag na doon ci lu nëbbu na doon lu feeñ na doon lu nëbbu ak lu ndax léeg-léeg nit mën naa sellal ci pénc mi waaye dem biir këram nag mel na du woon moom nga xam ne ci gaaram place bi moom man ngay julli ndax gaa yi ñooy julli nga julleen doone ñoom waaye sa biir kër nag nga tegale say tànk di nelaw garaawut parce que yow dongu la sa néeg jàpp nga ne kenn gisula la amul problème kon sellalatoo ndax bi nga koy def ci bitti nit ñee tax te ñoom amuñu pay nit ñi amuñu pay suñ borom subhaanahu wa moo yoru pay waaye ji nga defal teraanga ci àdduna lu teraanga ji rëy rëy moom ñaanal la la man sant la la man waaye boo ko defee ngir mu fay la lum la fay rek boo demee ba fekk angaari suñ borom yam dencal defkati lu baax yi nga xeeb fay giñ la fayoon ci àdduna nga ne su ma yëgoon def ko te yàlla rek tax moo tax mu ne kon maa ngi leen di dénk ngeen sellal yal nañu yàlla dimbali ci ñuy sellal ci lu nëbbu ak lu feeñ beneen dénkaane bi ci topp mu ne ko maa ngi lay dénk nga maandu nag nga maandu jamono ji nga kontaanee ak jamono ji nga meree ci yam na nga doon ku maandu fi rida wal qadab maa ngi lay dénk itam nga doon ku jub maa ngi lay dénk nga doon ku jub jamono ji nga xam ne dangaa am ak jamono ji nga xam ne da ñàkk lu mu ci man di doon nanga doon ko jubal tegal ko ca ne ko maa ngi lay dénk ngay baal ñi nga xam ne dañ laa tooñ te ngay jox ñi nga xam ne dañ laa xañ te ngay jokk ñi nga xam ne dañ laa dog ñi nga xam ne dañ laa dog ñaawal sa diggante yow mbokk yi nga xam ne dañ laa dagg nanga leen di dog xarit yi nga xam ne dañ laa dañ laa dog na nga leen di jokk waaye nag na nga def sag noppi mu nekk xalaat waaw bul bari ay wax kon del noppi waaye noppi gi nag na doon xalaat nga ne cell di xalaat sa diggante digganteeg sa borom di xalaat sa bopp waaye na nga góorlu ba booy wax say wax doon fàttalee li ngay wax doon fàttali doon tudd sa borom subhaanahu wa taala wala muy fàttale lu baax wala muy jàngale na ëpp ci say wax na nga fexe ba sab xool say seetlu sa yëkkati kàddu ak yi nga xam ne moo ci aju yépp nekk loo xam ne aw waaraate la sallallahu alayhi wa sallam ndénkaane bu rëy ngi boo xam ne bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba dinañ ci gën a taxaw jël ko benn par benn tàmbulee ko ci awsaani bil ixlaas fi sirri wal alaaniya wal adli fi rida wal xadab wal qasd fi lqina wal faqr wa an axfu aman dalamani wa uxti man xaramani wa asila man qata'ani wa an yakuna sumti fikran